mbokki téléspectateur yu euh, seen TV rawatina yu actunet internet yi ñu ngi leen nuyu di leen ziar bu baax di am mbégte lool ànd bi ngeen ànd ak li nga xam ne li moom mooy sunu waxtaan wi nga xam ne entretien lañ ko euh, duppee. tey nag ñu ngi wéy am ci mbégte lool di ci euh, dalal El Hadj Mansour euh, Mboup moom bokk na ci euh, coalition bi ñu duppee coalition bi nga xam ne moom la ñu daal di duppee pouvoir au peuple bi nga xam ne bi taxawal nañ ko fas yéene jëm ci élection yi kii di Abdou Karim Guèye nag moom moo nekk njiital coalition bi di mel El Hadj Mansour ñu ngi lay nuyu di am mbégte lool sa teewaay. ñu ngi leen di fay di rafetlu seen teewaay. Euh, pour ñu waxtaan jëmale ko ci coalition bii di le pouvoir au peuple ñu koy coordonné euh, Abdou Karim Gueye nekk ki nga xam ni moom moo nekk euh, tête de ñu tànn ko ci jikkoom ak ci taxawaayam pour Sénégal pour ñu am une assemblée du peuple. voilà justement mais El Hadj Mansour yow ñu bëri seen coalition bi laata ñu koy taxawal bu ñu ko tax sax daf leen a xaw bett dañu yaakaaroon da ngeen di dem ci coalition Diomaye président wala sax ci Pastef lu tax ngeen bëgg a ber seen daara. du ber seen daara ñun dañu am lu ñuy wax le sens du discernement euh, bi nga xamante ni élection présidentielle ñëw na dañu jàppale woon la coalition Diomaye président egsi nañ ci bopp réew mi ñun Sénégal moo ñu tax a jóg ak sénégalais yi bokkuñu ci benn parti politique muy ñi nekk ci pouvoir bi di ci kujje gi dañu mës a taxawaaye tax dañu mës a taxawal askanu Sénégal bi ñu eggee ci réew bopp réew mi ndëkk boobu léegi yàggul trop mais nag élection législative du élection wu politique yi c'est les élections du peuple le parlement muy l'assemblée nationale appartient au peuple dañu bëgg ñun ndëkk ci législature bi ñu def rupture que ñoom ñi nekk ci nguur gi rupture la ñu woote que askan wi leen dénk réew mi ak seen alal dem assemblée nationale di càmbar ñoom li ñuy def du ki ñu dénk moom mooy càmbar boppam mais ñi leen dénk ñooy càmbar donc assemblée nationale par définition mooy as pencu ndaw réew mi donc askan wi moo war a dem assemblée nationale pour càmbar lépp loo xam ne politiciens dañ koy def ñoom ñu nekk dans le rôle de de construction nationale ñun ñu nekk ci suñu rôle de veille et de contrôle de l'action de l'exécutif moo tax ñun ñu décider ànd di woo sénégalais yi nga xam ni ñoom ñëpp. Sénégal moo leen ñor Sénégal moo leen ñuy ay non aligné bokkuñu fenn ñu ñëw fekk si ñu si suñu coalition ñu peuple bi am majorité à l'Assemblée nationale ñu dem saytu réew mi bu ñu indee loi bu baax ñu voté ko bu ñu indee safaan ñu tegee ko nële. loolu moo ñu tax a jóg. mais El xam nga yéen bu vous définissez euh, en quelque sorte comme des comme des activistes euh, donte ne nee nga ay non alignés ngeen mais quand même euh, activiste tey seen position de société civile activiste est-ce que sénégalais yi taxaw nañu ak image bi ñu am ci activiste nga yaakaar pour ñu fal ko pour mu dem assemblée nationale. waaw xam nga Pastef à l'origine parti politique la activiste il faut ñu xam lan lay tekki ñun ce que mooy dañu jóg pour taxawal sunu réew ak sunu askan. da ngeen def politique wala defaluñ politique. li ñuy non li ñuy def c'est de la politique parce que il faut assumer ses responsabilités. kon fi ngeen jaar yëpp politique ngeen doon def pour c'était pour accéder euh, à quelque chose. ñun mosuñu ne defuñu politique nous sommes sur le champ politique nu nu baton pour notre pays politique c'est la construction de la cité dañu jóg pour tabax Sénégal bu dee loolu ñu tuddee politique nous sommes des. hommes politique et entre politiciens nga xam ne métier politique la ak des hommes politique des acteurs politique sax laa wax plutôt bokkul donc ñun nous sommes sur l'échiquier politique nous défendons des causes mooy la cause de la patrie et du peuple donc ci loolu la nekk duñ ci jógee. nguur combat yi ngeen doon gis yëpp pour pour pour falo la woon kon wala pour askan wi am seen affection pour ngeen mën falo non xam nga du caagi nag askan wi am sunu affection parce que bi ñuy engagé wu tàgguwuñu askan wi. dañu xam ni suñu réew dafa soxla ñun ñu jóg taxaw pour Sénégal ak pour Sénégalais tey jii bu dee am na changement au Sénégal mën nañu wax ni xeex bi ñu doon xeex pour politiciens yu jóge fi sotti na te loolu du lu ñuy bàkkoo mais c'est grâce à notre action loolu am loolu nag ñun mooy suñu taxawaay pour nga xam ne dañ fi jëlee politiciens yi indi fi lu bees ñun dañ jàpp sax ni waa Pastef du ñu ay politiciens. moo tax bëgguñu leen dugal ci schéma wu ñu dem assemblée di xëccoo ay place su di am leneen lu ñu fay lijjanti parce que dañuy delloowaat fu ñu jóge woon loolu la ñuy bañ moo tax ñun ñu créé suñu pôle de non aligné muy le pouvoir au peuple Abdou Karim Gueye ndax taxawaayam ñu jiital ko doyloo ko ci jikkoom ak ci lépp mbir mi du jàng du ay niveau intellectuel du ay diplôme kese parce que ñi fi nekkoon ci Senghor ak ci Ablaye Wade ëpp ñu leen ay diplôme dàq ñu leen jàng mais tey fu Sénégal dugg ñoom ñoo ko fa dugal donc dañuy xool ay nit yu am vertu ay nit yu am gëm-gëm nit yu am pas-pas réew mi jaral leen lu ne ñu taxaw assemblée nationale pour sauver réew mi xeex yi ñu doon xeex ci mbedd mi ñu jël ko déplacé ko ci biir hémicycle bi défendre li nga xam ni moom mooy Sénégal ak sénégalais xol nan la ñuy def ba sénégalais yi jëm kanam te ci loolu dañ ci am ay projet yoo xam ni moom lañ bëgg yóbbu incha allah assemblée nationale. mais nga dem ci projet yi faw ñu dem ci élection yi barki Dembo Ndiaye ngeen def seen conférence de presse El Hadji Mansour mais euh, fi leen ñi ñëpp doon xaare 15 euh, millions caution quand même ngeen di lancé benn cagnotte. est-ce que koo xam ne ki mënut am 15 millions bëgg a lancer cagnotte quand même mën naa mën naa mën naa yor réew mi. non waaw koy erreur bi ndëg nekk Sénégal loolu ndëg mooy la problème mbir mi buñ ko tegee ci xaalis ñi mën dëggantaan am ay capacité am ay valeur waroon mën a yor réew mi su dee xaalis rek mooy condition pour nga mën a bokk walla pour nga mën a yor mais kon ñu jub ñi du ñu mën a yor du ñu mës a yor Sénégal est-ce que da nga bi donc mooy li waa ji doon wax ne ñi nga xam ni ñi nga xam ni ñoom ñoo ñu ñu ñi mën ñi mën dëgg mën a yor réew mi xëy na yoruñu koom-koom ñi nga xam ne ñoom ñoo ànd jubuñu mais malheureusement ñoom ñooy jiite Sénégal moo tax Sénégal mënul tegu ci yoon il faut des Sénégalais vertueux ñun dé ñun détourné wuñu xaalis jëluñu xaalisu réew mi ay liggéeykat lañ sunu salaire ak sunuy ñaq lañu lañu lañu lañu lañu la ñu yaakaar pour dund yaakaaruñu ci xaalisu politique ñu ko yaakaaroon tey ñi ngi ci gouvernement bi ñun ñoo xeex ba ñii nekk fii falu laajuñu poste laajuñu sunu wàll laajuñu privilège. non bu ngeen fasoon ci xeex moom ñun ñu xam leen wala sax ñu jox leen ci poste yi parce que ñi fi fasoon ñëpp parce que ñu ngi xeex bi lim ci def Sonko sax defu ko ci te kooku c'est kooku lu leer la. loolu mooy tax mer ngemb bi seen coalition bi. non non non ñun ñoom ñoom xam nañ ñu bu baax ñun duñu sax mer bay ngemb parce que suñ doon dañuy mer di ngemb mais kon ñun ñu fës sax ba ngeen xam ni ñun ñëpp ñun Sénégal ñun toppuñu nit. da ngeen a bokk 54 pour cent yi. mais 54 pour cent yi non seulement dañ ci bokk mais cent 99 pour cent des 54 pour cent ñoo ko liggéey. Ah, comment ça te dañ koy defal ndànk cest dire du ñun kese mais ñun ñoo ànd liggéey li jur 54 pour cent ñun ñoo ko liggéey def ci ay sacrifices yu ci kenn deful mais l'exemple le plus parfait mu ngi nii toog est-ce que dégg nga wax. mais kon ngeen ànd jox leen majorité comme moom démocratie c'est l'équilibre des pouvoirs équilibre des pouvoirs boo contrôler exécutif bi mais contrôler parlement bi équilibre amatul donc y plus de démocratie Sonko ak Diomaye ñoo woote rupture au Sénégal sur le champ politique dañu bëgg pouvoir yi bu ci nekk am autonomie am son pouvoir am sa force mais soo contrôler la justice contrôler l'exécutif amatul équilibre soo contrôler exécutif bi contrôler le parlement équilibre amatul il ne faudrait pas que ñoom ñi woote rupture ñuy fausser le jeu d'équilibre des pouvoirs parce que loolu moo taxoon ñuy xeex. war ñoo am majorité à l'Assemblée nationale. war ils doivent être léegi ñoom dañu ne. pour ñu gouverner il faut ñu am majorité léegi bu ñu demee élection yi ñu am minorité kon dootuñu mën a gouverner dañuy démissionner il faut être responsable falu ñu leen pour ñuy def politique dañ leen fal pour ñu liggéey pour Sénégal ak pour sénégalais ñi ngi may dégg ñi ngi may gis assemblée nationale bi peuple bi askan wi ñoo ko moom nañu gouverner on leur a donné près de huit mille milliards. pour ñu liggéey Sénégal sur cinq ans ça fait quarante mille milliards nañu xool naka lañ koy planifier pour génnee Sénégalais ci mbënd mi lijjante problème mu njàng bi fexe ba kenn dootul jëlati gaal ku bëgg faju faju ku bëgg a jàng jàng ñun ci loolu lañ leen di xaar te dañ leen di ñaanal ñu réussir parce que seen réussite suñu réussite la. mais loolu gisagoo leen ko en quelque sorte yéen waa coalition bi. non mais dafa des xëy na dafa teel nee la man ñun ñun waa coalition. citoyenne le pouvoir au peuple dañuy may Sonko ak Jomaay maanaam état de grâce pour cinquant ans bi pour ñun c'est un quinquennat de grâce yow xam nga ni cinq ans mënuñ ci tabax Sénégal man xam naa loolu Karim xam na loolu keneen xam na loolu mais ci cinq yi mën nañ ci teg Sénégal ci yoon ba bu ëllëgee muy ñoom wala muy keneen ku ñëw nag da ngay ñëw rek tabax dem mais dañ leen wax ñu redresser le pays li fi politiciens yi. ni ñuy def ak les questions de l'heure par exemple junj nga ko immigration bi ngi fi boo yaa ngi euh, faatu ci géej gi kenn mënut a wax lu luñ dégg euh, inondation bi mi ngi fi également yooyu yëpp yooyu yëpp am na fii dañ naan dañ leen may temps de grâce cinq ans yi pour ñu mën koo saafara. non xam nga euh, yebal sa doom ci boutique bi taxul nga ne ko dama bëgg xef ak xeppi nga dem ñëwaat mënul nekk ñun xam nañ ni. defar Sénégal xajul ci juróomi at parce que liñ fi yàq dafa bëri te d'ailleurs sax Sénégal kenn mësu koo tabax li fi gën li fi gën a baax li fi nekk tubaab yoo ko fi def def bàyyi ñu nous ne sommes même pas capables de gérer ce qui existait ana bi le rail à été construit au Sénégal en 1805 il y avait un train entre Dakar et Thiès les 40 minutes en 1960 mais loolu amatul tey est-ce que dégg bi donc mënuñu leen sëf lu ñu attanul ñun ñoo leen jox réew moo xam ni dañ ko yàq ñun ñoo xam ni dañ leen war may temps pour ñu liggéey donc nañ jublu ci liggéey bi assemblée bi du seen cër nañ ko bàyyeek askan wi parce que ñoom dañ ne Sonko moo woote solution dégg nga wax ñoom ñoo am nañ projet. parce que mais ñoo xam ñoom li li li ñu gëm wala bu euh, nguur yi fi jaar yëpp wala président yi fi jaar yëpp mooy faw ñu am majorité à l'Assemblée nationale quand même pour que li ñu bëgg a def xëy na di ko voté ñoom seen muy jàll kon kay bu fekkee ne ñoom waruñoo am majorité à l'Assemblée nationale amatoon intérêt ñu tas Assemblée nationale bi fi majorité assemblée nationale PS amuloon majorité assemblée nationale fu mu mujjee PDS bi ñuy gouverner ñoo amoon majorité n'est-ce pas Macky ak Benno Bokk Yaakaar ñoo am majorité pandant douze ans fan lañ mujjee te ñun ñoo leen fi jëlee malgré leur majorité Sonko ak Diomaye bi ñu leen di fal est-ce que dañu amoon majorité ils étaient minoritaires à l'Assemblée nationale ils avaient vingt-quatre députés sur cent soixante-cinq députés mais minorité terewul nga falu majorité du la bàyyi ci nguur gi donc logique boobu c'est une logique qui est fausse nañu bàyyi politique bi te liggéey du ñu ay politiciens ce sont des gens qui ont dit que mën nañ tabax Sénégal jox nañ leen réew mi dénk nañ leen sunu alal nañu tabax Sénégal te insécurité bi fi nekk ñu fexe ba jëlee ko fi yaa ngi ma doon wax sànq immigration clandestine mais ñun suñu coalition dañ ci am solution. Ah, mais il faut ngeen xaar 5 ans comme ñi fi nekk nee nañ dañ leen may temps de grâce. que yaa ko dafa ndànk dañ leen di en dedem man personnellement je leur donne ans pour redresser le Sénégal et Karim leur donne notre coalition 5 ans lañ leen may pour ñu tegaat réew mi ci yoon tegaat institution yi ci yoon. génnee seen loxo ci assemblée bi bàyyi ko askan wi lu ñu def bu baaxee bu ñu indee loi su baaxee ñu voti ko su ñu indee loi boo xam ne c'est contraire aux intérêts de Sénégalais mais ñu dindi ko. Sénégal dañu la dégg ci li ngay wax ne bu leen jox euh, Pastef majorité ci assemblée nationale. mais Sénégalais yi bu ñu ko déggaloo aussi ñu delluwaat fa nekkoon rek ci dictature lañ jëm nit ki doo ko jox. un ex majorité dañuy am dictature. non dégguloo ma de boo joxee nit ki nguur. nga jox ko parlement muy buur di bummi mais ci dictature nga jëm kooku dafa nekk de propensions naturelles nit ki boo ko joxee pouvoir yëpp mais da ciy abuser ça c'est quelque chose exception du am. te yow loolu nga yaakaar. loolu lay demee parce que noonu la mës a demee 60 ans Senghor PS ñoo fi nekkoon contrôler parlement bi contrôler mosuñu am problème mu ku fi nekk comme président on a eu des présidents ku fi dem sa ay bu jeexee nga dem mais li ñu bëgg a def yëpp. jalgati réew mi changer loi yi pour toog fi ci assemblée bi lañ ko jaarale comme foofu ndëg la ñuy jaar pour yàq ñun sunu démocratie malgré sacrifice yi askan wi di def mais nañu contrôler sunu parlement ku indi loi bu baax ñu bàyyi mu jàll ku indi loi bu baax immigration clandestine bi nga doon wax dama ciy taxaw tuuti mais ñun boo demee gana dañuy laaj visa d'entrée dëkk yi ñu koy laaj da ngay fat visa wala nga am carte de séjour pour aller au Ghana pour certains pays loolu dina leen générer plus de cent milliards. mais ñun suñu instauré un visa d'entrée au Sénégal nguur gi mën nañ ko décider demain par décret ku ñëw Sénégal boo ñu laajee visa mais Séné man bërki démb rek maa ngi jënd benn cutus pour le visa fële Ecobank pour les États-Unis j'ai payé cent vingt mille francs mais sénégalais ak nii ay koom-koomam tuutee bu fu mu mën a fay cent vingt mille américain bi mën na fa mën a fay deux cent mille mais bu mu fay cent vingt mille mu fay deux cent mille américain bi fu bëgg a ñëw na fay cent européen bi fu bëgg a ñëw puisque dañuy laaj visa na fay cent dollars et puis ak li ngay daj sax léegi pour am sa visa donc bu ko dajalee mu mat cinquante milliards ba cent milliards par année mais cent milliards sur cinq ans c'est cinq cent c'est c'est cinq cent milliards sur dix ans c'est mille milliards boo ko doon def ci njàngu xale yi ci formation bi jox ko mool yi jox ko baykat yi mais xale yi di dugg ci géej gi même su dee jeexul mais dina wàññeeku ñun ci ay solu ñëw ñu pour kaas ñëw ñu pour critiquer. en tout cas gis nañ solution yu ngeen yu ngeen wax mais tey ba tey euh, seen cagnotte bi ñu waxaat ci. cagnotte bi quand même euh, yi moom gis nga dañ leen attaqué depuis démb ak tey cagnotte bi cagnotte bi pour pourquoi xeetu yelwaan boobu lu tax. waaw mais xam nga dama lay wax benn affaire bu ndaw États-Unis ñoo ñu ëpp ay moyens Donald Trump c'est un milliardaire en dollars waxuma la en CFA de. un milliard de dollars c'est l'équivalent de six cent milliards de francs CFA c'est un milliardaire en xam nga kooku soxlawul xaalis mais pour mu Donald Trump dem élection présidentielle. seen code électoral daf koy interdit sax moom mu def ci xaalisam exclusivement c'est le parti républicain qui finance sa campagne américain ñii dañuy joxe un dollar ñi joxe dix dollars un dollar xam nga mooy ñaata mooy six cent francs CFA te ñun suñu kañot sa lu mu néew néew nit ñi bu mais on a. ay mille francs mille francs yi ngeen yi mais ce matin on a reçu des millions suñu biir kañot ay millions li mu wax nii c'est pas c'est pas des blagues dans suba ginnaaw suba di ngeen ci xam dara. du lépp la ñuy wax. risque bi mooy man ñi leen jox ëllëg man ngi leen nekkal assemblée nationale hein. no non non xam nga ñun nous ne sommes redevables envers personne. Ah, parce bi moom bu ngeen ko doxalee da ngeen defal ndànk sëñ bi dëkk yëpp noonu lay doxee. Sarkozy buy dem Sénégal lañ nekk aussi élage. ser dëkk yi ci àdduna bi yëpp pour nga dem élection dans les grandes démocraties dañ lay nattal dañ lay cotiser ku am un dollar indi ku am un euro moo fal Sarkozy moo fal Obama moo fal Bill Clinton fal tous les grands présidents de l'histoire du amul amul kersa amul rus pour que sénégalais yi dugal seen xaalis ci sunu gafaka ne ñu yéen ñu doy pour dem élection. kon ñu leen kañu dañoo xamul luy kañat. non mais Pastef lu ko yóbbu ci nguur gi lu dul kañat dama lay laaj. Pastef Pastef lu ko yóbbu ci man 2019 dama bokk ci coalition ko président. dama doon jël sa Pastef nag dama leen di seedeel loolu képp ko wax ni seen xaalis suñ koy jëlee c'est clandestin waxu dëgg parce que dama fa nekkoon 2019 di leen jàppale bokk ci coalition Sonko président di jël sama xaalis di cotiser. xaalis boobu xaalis boobu ci lañ doon defee campagne. Idrissa Seck avant Pastef ak yi yëpp am ñun ñëpp gis nañ 2007 moom ak Ablaye Wade ñoo nekkoon en compétition am t-shirt bi Idrissa Seck doon battre campagne maa ko jënd ak sama xaalis. yow maa ko jënd parce que c'était de meilleure qualité. mais Sénégal boobu laa doon xeexal à travers sa personne parce qu'il fallait que dictature bi Ablaye Wade bëggoon indi parce qu'il contrôlait l'Assemblée nationale bëgg indi ay car bloquant encore une fois de plus moo tax ñu bëgg loolu pour mu bañati am ñu jël as ñu jël sunu assemblée téyel ko sunu bopp président de l'Assemblée nationale nekk un indépendant président bi su ñu bëggee imposer dara ñu ne ko lii du fi am. système système Pastef bi ngeen ngeen jël yéen seen waa seen coalition bi. bi ñuy xalaat Pastef amul. bi ñuy def xalaat bi ñuy xalaat ñun Pastef amul maa ngi fii téere bu ma yor bu ma bind booy dem dinaa la ko jox bu ñuy xalaat Pastef amul te projet bi Pastef am di ko wax sénégalais dafa am rôle bu du ñu bëgg ñu def di wax parce que li ñuy def defaluñu ko Sonko defaluñu ko Pastef suñu bopp lañ koy defal Abdou Karim biñ koy da ngeen bëgg dem assemblée nationale ñu bëgg a xam dëgg-dëgg seen seen seen jaar ak seen taxawaay bi nga xam ngeen ko changement bi no changement bi sun xel dal ci yéen changement bi ndéggaloo wax naa la sànq ni résistance bi nga doon wax ci Sonko président en mars 2021 ci salle bii lañ ko nasee man ak ñoom Abdou Karim Gueye ak ñoom Dambo kenn ku bokkul Pastef nekkuñu ci ñun ñëpp suñu tour dañ ko joxoon force spéciale yi pour ñu arrêté suñu ñëpp a dugg kaso ci ñun ñëpp ndax changement bi am amul ku gis nga Sénégal dama lay wax lu ndaw tey. ñi fi faatu nii gan ñi lax kan la kon. non non euh, mbaa dañ leen ci woo. non non defal ndànk defal ndànk defal ndànk xam nga faatu bi ñun dañu ne dafa am benn dig nit koo xam ne ñoo ko fal. mu wëlbatiku jël doole ji ñu ko jox bëgg ko wëlbati suñu kaw ñun du ñu ay jaam du ñu ay colonisé te Macky Sall du moom moo ñuy noot bu ñu naree noot dañ ko fiy jëlee ni ko fiy jëlee mooy on va organiser une révolution pacifique pacifique mooy dañuy marche ba palais. résistance bu ñuy rey mu rey ñu mais guddi googu lay jóge Sénégal ñun ce que ce qu'on voulait faire mais kenn tu ñun musul Karim mës nga ko gis ñu foto ko muy sànni xeer. kon yéen ko xalaataloon dana ma rey waa ko. loolu ñi ko wax ñoom la engagé bu doon ñun ñoo ko wax da ngeen ñu gis ci télé bi ñu koy wax dañu ne on appelle Karim a insisté Sénégalais yi Macky dafa dangereux dañuy woote résistance pacifique ñun ñëpp on a insisté sur le mot pacifique dox du ñu yor ngànnaay du ñu yor xeer du ñu yor luy gaañ nit dinañ dox sunu dëkk ñoo ko moom mais place de l'indépendance te loolu maa ngi ciy interpellé Diomaye ak Sonko en 1958 amaguñu woon indépendance tubaab yi ñoo fi nekkoon. sunuy maam bi ñu bëggee indépendance place Protet muy tey place de l'indépendance fa la ñu dem xeex ba ñu def seen ay pancarte ba ñu jox ñu indépendance arrêté Ousmane Ngom ñëw ñu ne léegi kenn mënatu fa manifester waa réew fi nga xam ni fa lañ demoon taxaw tuddee ko place de l'indépendance soo fa munul manifester pour li la naqari pour réew mi am jàmm am justice sociale mais ban benn place ngay dem arrêté Ousmane Ngom boobu maa ngi profité ci plateau bi ñaan Sonko ak Diomaye ak le président Bassirou Diomaye Faye ngeen jàppale ñu l'arrêté Ousmane Ngom ngeen approché ko définitivement ba sénégalais yi am un accès libre à la place de l'obélisque su ñu amee lu leen naqari ñu dem foofu manifester ko man dem naa Maison Blanche sénégalais la ci buntu Maison Blanche su ma neexee ma jël sama pancarte ne Macky Sall le dictateur la américain yi wax leen ak moom te réewu jàmbur la yow sénégalais nga man sénégalais la mais dañuy dañuy critiquer Donald Trump dañuy critiquer euh, Macron mais pourquoi Sonko ak Diomaye bu mais ku gis loo àndul da nga naan lii àndu màcc te ñun noonu la ñuy doxee nous sommes libres kenn tënkuñu kenn moomuñu li ñu xam daal mooy. am na ay réformes yu ñu bëgg a yóbbu assemblée nationale te loolu moo tax a jóg suñu coalition. en tout bi ci gën a fës dégg na démb ngeen koy wax pour pourquoi vous insistez euh, beaucoup euh, ci borom ñaari tur yi ne euh, nañu nañ nañ ko leeral voté ko vraiment bu ngeen demee assemblée nationale doon na bokk ci li nga xam ne da ngeen koy taxaw te pourtant article 319 mi ngi fi. xam nga li fi nekk moo di gis nga ñun bu ñu naxante ñun sunu biir. Sénégal dëkk la boo xam ni c'est un pays de valeur dañoo am sunu ay valeur et dëkku ngëm la boo nekkul chrétien musulman nga boo nekkul musulman yéeféer gëm animiste nga mais foo jaar sénégalais bi dafa am lu mu gëm donc même ceddo yi bi ñu nekkee ci ceddo gi sax mais ceddo mooy koo xam ne du fen bu waxee tey lay dee tey lay dee bu waxee tey jii maanaam lii dina ko def da koy def mais loolu lan moo ko gën a nekk vertu boo gisee ñu gaa na way ceddo yi dañu bonoon ceddo yu bonuñu woon sunuy tubaab yee leen yéesoon sunuy maam crime yi tubaab yi def suñu benn maam defu ko te pourtant ñi ngi fi di ñu jox ay mais tubaab yi ñoo ñuy jàngal démocratie ki la colonisé def la jàmm jël say jël Afrique yàq ko jël say ressources di ko piller imposer la làkkam kooku moo lay jox leçon yow nga koy nangu moo tax ñu ne rupture dafay am ñu indi un système boo xam ne c'est basé sur la religion boo waxee nag nit ñi dañ naan mais sawaay système religion ngeen bëgg a indi mais mooy li gën pour ñun mooy li gën pour réew mi donc ñun bu ñu sañoon dañuy appliquer fii charia au Sénégal charia na si xam nga nit ñi boo waxee charia ñu ne da ngay dagg baatu nit ñi mais ku rayul sàccoo kenn ku sàccul du ñu dagg sa loxo ku rayul kenn du la rey xale bii di Abdoul Aziz Dabala yàlla na ko yàlla yërëm mais xoolal niñ ko rayee ni mu ñaawee ray ko ray ki mu àndaloon tëj leen ci néeg dem seen yoon mais yow ñemee nga def loolu. après ñooñu ñu tëj leen kaso di la dagg yow sa impôt sama impôt impôt Karim di leen ko dundalee biir kaso mais ñun xalaatuñu loolu ku rey nit dañ lay rey alalu réew mii ñu ngi gis ku ko luubalati dañun nous sommes pour la peine de mort pour les détournements de deniers publics képp ku jël xaalisu askan wi sàcc ko do on doit te fusiller devant le peuple entier bu ko defee kenn dootu ko def gis nga Chine fetal la ni ñun ñëpp di gis mais Chine moo gën a doy waar sa Arabie Saoudite duñ la fetal Arabie Saoudite man dem naa màkk am na place boo xam ni chaque vendredi buñ jullee ba pare ñi jël trafiquant de drogue yi ñi sàcckat yi ñi rey nit dañ leen di rey en public ku mu neex nga dem seetaan yi mais xanaa nag duñ ne nag ñun ñun Arabie Saoudite ñoo ñu gën a civilisé ñun buñ ko defee ñu ne dañuy bar bar ay ay baar lañ mais Arabie Saoudite dañ ko def pourquoi tubaab bi duñ attaque saoudien yi américain Texas boo rey nit dañ lay rey. te ñoom pourtant ils sont le modèle de la démocratie France bii di ñu wax peine de mort baaxul les frères Kouachi yi yi yi yi attaqué woon le Bataclan ñoom rey ñu leen de on les a abattus la ñu wax abattu on abat un animal mais nit kenn du ko abattre nit da nga koy juger rey ko ci sutura terroristes yëpp France dañ leen di dóor bal mais dóor parce que dañu rey nit ñu rey leen bëgguñu appliquer charia mais ñu ngi def lu pire li charia di def parce que dañuy rey nit comme mala ci mbedd mi ñun ñëpp gis nañ ko ci télé yi ki bëggoon rey Donald Trump naka lañ ko def te reyul Donald Trump bal bi daf ko frôlé rek ñi ko dóor bal mu dee mënoon nañ ko dóor bal ci tànk jàpp ko mais duñ la jàpp il tabat. donc at mu at mu at bi gën a gaaw ku rey nit une vie vaut une vie ku rey dañu lay rey encore une fois de plus. def république islamique. Euh, l'exécutif aux politiques l'assemblée au peuple ñun loolu mooy suñu xeex te dinañ xeex ba loolu am dinañ wër ndëkk Sénégal yëpp. pour sensibiliser Sénégalais ñu bañati jël sunu assemblée di ko jox ay politiciens nañu liggéey ginnaaw dañu ne mën nañ defar Sénégal loolu doy na leen caq ak jara nawet baa ngi nii am na sax ministre bu ne ñoom nawet bi du sunu nawet nawet bu wàcc Sénégal war a fi indi xéewal ndox mi bëri ñu ñàkk ndox ñii amuñu lu ñu naan yàlla wàccee taw gàncax gi war a sax ñu indi war a indi naataange ñu ne nawet bi mais kon nañ ñaan yàlla mu bañ a tawati Sénégal ba il faut être responsable gis nga man président bi dafay soxlawuñu président bu yaru ak dañu bëgg président buy liggéey loolu rek lañ lay doyee parce que yaa ko wax. soxlawuñu jomaay mu yaru ak ñoom seen. min na liggéey on n'a pas besoin d'autre chose ñun on est carré sur ce qu'on dit c'est vrai que tu dois être une référence boo nekkee chef de l'État mais li tax ñu fal ko mais kon mais bu doon yar mooy tax ñu dañuy seet ki gën a yaru ci Sénégal ñu fal ko dañu bëgg ñu liggéey. ñu bàyyi wax ji wàññi ko il faut parler peu et travailler et beaucoup travailler. Alors, ministre de l'intérieur moom kàddoom yi doy na la bi muy dalal euh, les hommes politiques euh, ci xool naka la ñuy waxtaanee pour jëm ci élection législative yi. waaw ministère de l'intérieur la charrue avant les bu dee da ngay ànd ak ay nit ngeen di dem élection balaa ngay jël décret ne élection yi telle date la caution bi temps la da nga leen di woo ngeen waxtaan ba pare loolu mooy démocratie doo jël sa décision ba pare woon nit ñi les délais sont courts en dix jours. nit ñi war fi daw wut caution daw dugg fii def seen ay liste da ngay teg nit ñi fitna te ñoom dañu ñëwoon bu ñu jëlee nguur gi loolu dafay jeex dafa am nag lu ñu jégoon sénégalais yi ñun bëgguñu kenn vaar le président de la république Diomaye fay bëgguñu kenn vaar Ousmane Sonko mais li ñu déggoon sénégale yi nañu ci dem ñun ñoo wax sénégalais yi voté leen bu ñu réussir échoué ñu ñu waxoon voté leen ñun la ñu attaqué parce que dañ naan yeneen ci dugal gis nga pression bi ñu tegoon Macky Sall ba mu bàyyi nguur gi dinañ teg Sonko ak Jomaay pression bu ko gën a forte dix mille fois pour ñu réussir. Ah pour ñu réussir dégg il faut faire la part des choses Macky dañ ko teg pression ba mu dem parce que du président bu baax ñun dañ jàpp ni Sonko est très vertueux Diomaye est très vertueux te xam naa ne du ñoom ñooy sàcc alalu Sénégal parce que ce ne sont pas des parce que xam nañ leen nit ñu baax lañ mais dañ leen yéene ñu réussir. ba bu ëllëg am na liggéey boo xam ne buñ ko liggéeyoon ñun ñoo leen di njëkk a jàppale mais assemblée bu du seen cër nañ ko bàyyeek askan wi ñu jël réew mi. dafa am ci lu leen xamee ah bu fekkee ne duxul rek da ngeen taxaw ne duxul. non loolu moom loolu Karim moo njëkk a jóg wax leen sawaay yéen ci kaso bi ngeen jógee génnee leen ñi ngeen fi bàyyi effort yi élection yi fa bañ Karim dafa teel a jóg dafa teel a wax. du ñu bàyyi ba Sénégal yàqu ñuy soog wax ñun bu ñu sentir que lii di lii di lii raam ci ñag bi la jëm dañuy jóg téye ko balaa muy egg ci ñag bi ñun se comme ça qu'on bari ñoo xam ne fi ñu toll dañ leen a tere ñu génn génn réewum Sénégal aussi élage waaw loolu c'est une maladresse de mon point de vue xam nga réew boo ko yoree adduna bi amul ku fi mën a rëcc euh, Cheikh Abdou Lahad Mbacké dafa doon wax ni koo xam ni bu ñu bu ñuy bu ñuy bu ñuy bu ñuy bu sëy bi bu ñuy takk sa yaay sa papa ak sa yaay bu ñuy sëy adduna bi yëpp ko koy yëg bu ñu lay ngénte ñëpp a koy yëg boo génnee àdduna Sénégal ñëpp ay xam ni génn ak àdduna kon sooy dund lépp loo fi def nit ñi dinañ ko yëg le monde est devenu un village planétaire gis nga sa gaa sa waay Interpol mi ngi fi c'est la police des polices c'est la police des c'est la solidarité entre les polices fu nit mënti dem Macky mi nekk Maroc suñ ko defoon mandat d'arrêt international le roi Mohammed VI mënatu ko défendre dañ koy jëli indi ko Sénégal police marocaine moo koy takk ba mu dëgër ne leen seen waajee ngi fii kaa leen jël si kon gars yi waroon leen waroon téye tere ñu jàll. dañ leen waroon bàyyi ñuy dund seen dund. ñu créer commission d'enquête préparer tous les dossiers jël li nga xam ne mooy enquêtes yi ñu def les corps de contrôle jox ko le procureur la République qui est le maître des poursuites ñu def enquête ci ku nekk. ku def ba ñu am preuve yu leer ñu woo la ne la sëñ bi del wax dëgg yàlla li nga yoroon gis nañ ci lii nga ci def ku deful ñu bañ la woo bañ la yóbbu tribunal nga yéeg ñu yàq sa dernaan yóbbu nañ ko dikk yóbbu nañ ko ñu ngi koy enquête bi ngi en mandat c'est-à-dire ku deful dara bul ko suivre nga suivre leen ñuy parce que dafa loo xam ni y a ce qu'on une fortune subite am na man mënuma jékki-jékki rek toog nekk milliardaire France c'est ce qu'on en fait euh, moom la ñuy wax genre en fait. Euh, gis nga le fekk nga jékki-jékki suba nga dawal Mercedes ginnaaw suba nga dawal nga dawal nga dawal signe extérieur de richesse boo ko defee dañ lay woo nga wax Mercedes bi fan nga jëlee xaalis bi wax jàppaguñ la de fan nga jëlee xaalis bi nga jëndee Mercedes bi gis nañ ni keroog BMW nga kii bii deux cent millions di jar bee cinq millions fan nga jëlee xaalis bi nga teel ko expliquer loolu yooyu lañu soxla ci réew mi pour réew mi dem bu ñu jël kenn ciblé ko parce que ñoom ñoo fi nekkoon assemblée nationale bi niñ leen fale bi ñuy fal député yi Diomaye nekkagul président député yi kan moo leen faloon du askan bi mais président warul ñëw tey ne tas naa assemblée bi mu tas tey waa léegi as ñu nekkoon ci assemblée bi amuñu njaboot amuñu ay responsabilité amuñu ay engagement bancaire ñoo ñu danga leen di daq rek pour des raisons politiques après ñu dem toog. kon tas bi àndu leen ci. àndu ma ci parce que du loo sañ def ko le président aurait pu aller discuter avec les députés bi ñu ko fale ne leen dañu bëgg institution yu dugg. liggéey nu mu war a liggéey c'est vrai que assemblée gars yi aussi dañ nekkoon ay député Macky Sall rek ñoom si boppam ñoom ñoo doon wax ni c'est des députés de président de Pastef ni des ni des députés du parti ni des députés de Diomaye nous voulons moom sax moom rek mooy dem en singlo ku bëgg bokk bokk ci ku ci bëgg bokk doo ci bokk peut-être li ngeen bokk ci Pastef moo tax mën na leen bokk ci ngeen def seen coalition non non non non xam nga saway sa waay ñun bokkuñu foofu mosuñu fa bokk te ñoom xam xam nañ on n'a pas d'antagonisme ak ñoom encore une fois de plus faut pas semer dans la tête des Sénégalais que dañu contre Pastef déedéet <laughs> ñun dañu xeex bu dugg kaso ndax ndax ndax ndax ndax ndax ndax ndax injustice bi ñu naroon teg Ousmane Sonko. ay Sénégalais gëm leen ci. ay Sénégalais mais parce que dañ nekkoon ci dëgg dañ doon xeex lu dul dëgg nekk ci dëgg sénégalais yi am ci estime ci ñun ba Abdou Karim bi wax ñëpp koy déglu parce que dañuy xam li ñuy wax bakkanam taxul dégg bi. am nañu choisir génn Sénégal ñun fii lañ juddoo fii lañ màggeeti fii la ñuy deewee fas ñu génn réew mi puisque fii la ñuy dund fii la suñu sécurité ak suñu teraanga ak suñu njaboot nekk nag képp ku ñëw bëgg a yàq réew mi wala nga nar wàcc yoon dañuy taxaw sa kanam ak koo mënti doon ak armée boo mënti indi ñun suñu yoon nekkul ci ndax dañuy dund ak dañuy deew ak dañuy arrêté c'est vrai qu'on a des familles on a les mêmes mais avant ñun dañu amoon ay maam yoo xam ni dañu bañ ba xëy ñii dañ leen rendi ñii ils ont été exilés Samori Touré dañ ko jël dugal ko ci bërigo goudron parce que moo gënoon soloon tubaab bi noonu lañ ko reyee cri boobu sàmmoor yi doon def moom moo waral sirène bi tubaab bi doon teg bu à l'heure de la pause pour de dire que sunu maam fi ñu jaarale yaa may dégg fu ma ku ci mel ni jéeri dañ dagg bopp bi ñee nañ bopp bi sax mi ngi France jéeri jeer ndoola fii ci Thiès ñun mënuñu am maam yu nekk noonu rek sa nekk fii di ay nit di ñu man bëggatuma ñu perdre une seconde yàlla def na fi xeetu koom-koom nit ñi dañ ko wax ci télé yi ba sax nit ñi dañ ci zone jërëjëf dégg rek nga ci am donc nañ ànd nekk benn sunu coalition de comme je la tête de liste c'est Abdou dañ koy jàppale ànd jàppale ñëpp ñuy woo sénégalais yëpp nga xam ni c'est des indépendants et des non alignés ñu ñëw rejoindre sunu lis ñu ànd ci élection bi jël assemblée bi teg ko ci loxo askan wi ñuy càmbar politique bu fi mënti nekk. ndax ni nga yore réew mi baax na wala baaxul nit doo ko dénk muy càmbar boppam te loolu la ñuy bañ moom Sénégal. jërëjëf El Hadji Mansour euh, Mboup moom euh, bokk na ci euh, coalition bi ñu duppee coalition citoyenne pouvoir au peuple mi nga xam ne Abdou Karim Gueye moo ko jiite mbokk yi ñu ngi leen gërëm yéen itam di leen sant yéen ñi nga xam ni yéenay suñu internet ak doon ñu seetaan ci biir réew mi ak bitim réew gërëm Germaine Ndior mi ñu àndoon ak.